ne bu fekkente ne dañuy jaar rek ci wàllu logique alxuraan ak topp tànk yonente bi fu mu tegoon tànkam hmm. kon ba ban jullee ci jumaa ji soppi nañ taxawaay ba hmm. ndax yonente bi mosul wax ci julli ne ba taxawal 1 mètre 2 mètre hmm. dane woon bu fekkee taw na maa ngeloon ne faf leen toog seen kër léegi nag boo fa bàyyee waxe yonent bi lam tere woon ne bu ngelaw amee ak kii ni toog leen seen kër nga ne doona damay ubbi sama jumaa nga dem ca jumaa ji ba noppi est-ce que dégg nga wax ji ah, parce que yonent bi dane nii la war a jullee ni mu ñu jàngal ci sunna mm-hmm. léegi mbas mee tax re changement boobu am léegi yow ñàkk tolloo ci sàppe wala sore day yàqu julli déedéet waxuñu day yàqu julli de waxuñu day yàqu julli maanaam te am na situation bi moo changer règle yi waaw situation boobu nag gars yi bu fekkente ne toog nañ ko ci yonent sax kon julli gi léegi kon julli gi yàqu na sax léegi am non oh, oh, euh, nan la yàqoo non ma xam nga sallu kama raaytumuni usalli sàkk yi yonent bi moo a ah, ah, ah, <laughs> indi loolu mais est yow yaa lii mottali boobu kon koy matul non non Maodo <laughs> Maodo Maodo mottali kay bu fa nekkatul matul situation bi bi xam nga cest en réalité dañuy déglu waaw dañuy dégloon te ah, buñ buñ tegaloon ah. buñ def buñ defoon suñu suñu appliqué woon njàngalu yonent bi <laughs> ah suñu appliqué woon njàngalu yonent bi dëgg dëgg dëgg duñ tëji jumaa yi ah ça dépend loolu mën naa doon sa waaw mën naa doon sa gisin waaw waaw ñi ubbi jumaa ñi ubbi seen jumaa ñoom itam xëy na buñ boo leen joxoon kàddu ñu indil la fu ñu ko teg ba ubbi seen jumaa